réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. ginnaaw bi ñu commencé waxtaan bi ni ki démb ci altine ji yéemoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février 2024 ni ki tey jii ci mardi ji la war a jeex. jamono jii ñuy àddi ngeen di teewlu nag maanaam li nga xamante ni mën nañ ko faa jàppandegum mooy que dat bi nga xamante nii ñu yole woon wàllum commission bi nga xamante ñooy saytu date bi nga xamante ni wala moom lañ ko war a amal ndax nag si fàttali ñaari commission ñoo fa amoon commission bi nga xamante ni nag ni moo di réew mi ak commission bi nga xamante ni nag mooy saytum wàllum date yi commission bi nga xamante ni mooy solu saytum wàllum date nag nee nañu nag proposé nañ benn date boo xamante ni ki nga xamante moo di président Macky Sall bi nga xamante ni mooy le 2 juin le 2 juin 2024 luñ proposé gum ki nga xamante ni moo di président Macky waaye date boobu nag nekkul date boo xamante nii nag bu officiel la dialogue boobee nag mën nañ ne nag ñu bëri ñoo xamante ni féete nañ ci kujje politique gi rawat na sax ñi nga xamante ni seen candidature conseil constitutionnel wala diwoon na ko ñooñu nag mën nañ ne wuyu juwuñ fi nga xamante ni moo di si dialogue boobee waaye ñi nga xamante ni nag ràññee nañ leen fa nag di candidat yi nga xamante ni seen euh, candidature dañ koo kale woon te conseil constitutionnel woon ko ñoom ñooñu nag seetlu nañ leen fa bu baax ñoom nag seen sàkkuteef nag du leen lu dul élection yi kat ñu randal ko te randal gu bu ñu ko randalee ba noppi nag maanaam processus électoral bi dañ koy daal di commencé waat en maanaam ku si nekk day daal di wuri waat parrainage ku si nekk day daal di déposé waat beneen déposement boo xamante ni bu bees tàq lay doon rawat na sax ñi nga xamante ñoo féetee ci PDS